رب العالمين والحمد لله والحمد لله رب العالمين يا سيدا في المال خلص رواء ويا محبا فاتي داخل مسواء إني أتيت اللي وجه لا يسخركم تحبين لما أرجو الليلة ما أرجو الليلة ما أرجو الليلة ما أرجو جزاك يا أخي إبراهيم مولاك غير الجزاء والمناح والمنى دارك لك فاعلم بأنك عندي سرد البدن وذاكر بك في الدنيا في الدنيا وأخراك فدنا لا سخي والإخلاص موتي كي تنمو كي تنمو مساياك حمد لمن كل بزرع لخور دندون سخسن عند سرسرع ورون بلا ثقة مصحد من بني دايما انصارا للوح كل لدى أبار مكرمة من التوال وفي عجم من صارا إن على ngi tuub li wajhi laahi ne mu ngi tuub bakkaar yi fi zamaani jannooti tuub bakkaar yi fi niswaan ngir bëgg a wéy ñaari jasaaw sa koor fukk ak juróom yàlla ko si weeru koor ndaxte ñoom sant tu daara yi ni tëbb ñoom aare ni mbaa naare ni mboolem fu mi laa bëgg a wax waa réew mi gannaaw gu ba jaar daaru salaam dem ba gànnaar dem jolof njaareem ñëpp daam mu daal di ñëw Jurbel dal ñibbi Tuuba dinaa ci xamle luy Bamba xéewal Mbakke baari tabbi ci li xidmatil muxtaari rëmbiree rëy rëy saaxir ma baatinal kaw ba Bamba Kunti daaru ma gënal Cheikh Bamba Kunti na fa daaru jëm lar caan ma mbaaxaan di ko woo naa der lër bu ko giralee di ma di daaw di weeru gàmm le fait contexte aw nee na keroo rëcc na mbuuti daaru ya def ko fa daaroo nga fa naa masriya gaw la baayam xeewoon Mbàkke baari gaw la baayam xeewoon te daaru njum gànnaar wen na la bayam dig ne woon ci réew mi mu dul ko nag moom du ma wéy man ni pendel mu gëntu bay la moom de jar naa raamal metel ga mu gën kaali a ñaraamal diglal maa la keroog ba Seexu Bamba gonte dar wër fa ki ngir yónneen ba bi ali soodaa bëgg ram ruusul junaan góoru taraata Cheikh Bamba dugg rek gaal gu doon naan di dem fa naan di dagana jaay fan weeri fan ca weer wa kerew la tàggoog du si ak tàngoor wa wax la gaay sant woon jëm ganaar ànd ak Serigne Touba Mbacké te ñëppay jàmbaar ndeke Serigne Abe rakam moo jiitu sëriñ ma mari pendaay la xoom du woote sëriñ ma sàmba xëri see xëri ak njóogu njaay moor xëri ñan toogu jaar keroog la saax keroog la saax keroog la saax keroog la saax di ko taxaw ci kanamam ne dongo naan ko mbakke balla dama bëggoon nga def ma sa takk ndeer bi foo jëm yoon may lal sa ndeer bi mu naan ko dellul te yéen nañ ma yaal ma naan te xam ma ñëw ma si sa dellul te ngeen nañ ma daaru mar naan te xam ni léegi ma ñëw bisni rahman Cheikh Bamba gaddang naar gu tudd addu baay yu njëkk wàcc eh, naare naan ko yaay waay yaaram yu juk di ko xëccoo naa tëllu ku nekk naan ku nekk naan ko sama xayma ngay jaar ngir léegi maa fi nekkal Cheikh Sidil Muxtaar mu daal di wàcce foofu sa digg kër jublu penku mel ni garga yaaram yee seen xol la ba lay jiin mu mel ni buur ganaar ñibbi seen xayma ya ngande tanti ya ngande borom mal fa ya jublu atiir si abamba ñun soob nañ na jaale nga waaye mbàkke bul dem bàyyi nga yomal xiyaam yu baale mu tuyee bu mboole xarnu bi Cheikh Bamba mu ne su la misaal yaay géej gi wër waa Sénégal defu la jàll genn gaal Seydou sa trooyal xarnu bi Cheikh Bamba yaa dig ma nuwaar toujours muusu ñaani naa la ku man di dey di mbaani teen say kaasa naatal xarnu bi ku sóoru génnaa lii dërëm dakoor bi dootu dem këram ku ne këram kaasu dërëm dootu man di des xat di Seex Bamba aw ma ma xaamam di la woo waaye murid yi ñoo la bu ñu woo suulam bi ñuy woo xand bi te jii ma wax ba ñu tereet ngir yaa ma def antal pereet yokku bi xam-xam ñi ko yore si sama xool si xarnu bi te bu ma tan xam lu si ñaan Sëriñ Tuubaa Mbàkke bul ma tan xam lu si ñaar booy ku ñëppal de defe koy mu dellu naatal xarnu bi jamono jaari xiif a xiif lu togg bañ di ni ko fuumam si bamba dee di di dee mu bi Seex Bamba Seex Bamba ويوي ويناتو سفر رمضان يلا واجي القران غير بغل بل ما جان يلا دفال كو خاتم بي شيخ بامبا يا زك واي جرو داي نفول كو بوله كو كي داي ندامي ما lamp di woote xarnu bi Amadou Fall Seer Njaay juróom jukki ca Ngaay góor dëgg baay lan la faal maam mi Seex Moodu Fallu Faal la a doomi jaara moo tax ba waykat ba Cheikh Samba Jaara Mbay fum tollu fum tollu na mbay ba ba Cheikh la demul ba faatu yawmal xiyaamati tutaab janaatu Alaaji Fall mbat ñaata nga wungalam bi sodan dukuni barawo barikal rabba boo xëyee ma rabba maa ngi ñaan ci rabba ngi sunu rasul alaaji fal mbàkke yaa ñu tàggale daax sargala la jala réew mi ñëpp yi daax def ci biir wala re alaaji fal mbàkke mooy fal di folli te ku ko neex mu fal la ngay fale ki mooy saak buy ku mën a aw mën fa ñu maalam yëx weddul ku dem ca moom xam ne kii mooy fadlul mu dala moom raw na mbooleem di siyaaran ca wàllu ku ne soo daanu bii daanu buuri naan la ca dala moom moom sëriñ شريف بن شريف شريف بن شريف شريف بن شريف شريف كوم جملولة الله جفال مكة بخت ساتر سرين مطلع فللو سبايد تنياكا daw képp ku koy laaj ku laaj bu may la nga géejal sin fallu mbakke xam nañu nga ana muhammad naal muxtaaru maa la ko waye ana muhammad naal

سفل في خير لا من دام تني خم نجلا روح روح بول بقاو كونف نياي نجوبا وغل ديوان يا سن بولو بخم نجلا نجل ولايتي يا يفل مونغ بولر سن بيا جيتم بولا كن والنقال قاد نتير كن بطر يا كي خلايك كن دقو قالو سرين بيزي فرم بقاد لنا borom benn la jox yaay boromi xar baax Cheikh Mor Fassa baaxum mooy maam si njaboo baaxum sama waaji mooy boroomi xar baax Cheikh Mor Fata baaxum man ma tarak saa bëgg naa sama lépp baax subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillah walhamdulillah rabbil aalamiin